Tisbaari jéewal ja jar na fàttali màggalu Touba jéewal la ñu dëgmal samedi fukki fan ak juróom-ñett si weeru mai atum 2024 loolee di édition ren bi waaye màggal goo xam ne bu fees daal ak taarix la ñu koy fàttaliku si yoonu Mouride Serigne Touba Serigne Mouhamadou Mourtala Mbacké Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba moo ko tàmbali woon ba si atum 1997 ci ndigalal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké si la teg lépp si loxoy Serigne Abdoul Mouhayminu Mbacké Ibnu Cheikh Mourtala Mbacké atum 1997 ba léegi mu koy dundal dundal goo xamante ni bii mbooleem ku fi nekkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba feddali nga ko ànd kook moom. jamono jamonoy Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké doon lu ñu yeesalaat ngir taarix mën koo jàpp mu daal di koy bind ci ab lettre boo xam ne fës na ci ak feddali waaye tamit joxat ko ndigal ngir mu dundalaat bis bu ràññeeku boobee nga xam ne moo di màggalug jeewal. noné moko defit Cheikh Mamadou Lamine baram bakki Cheikh Sidil mohtar mbakki bi mu nekké xalifa général des Mourides noné lako fedil watel Serigne Abdoul Mouhayminul mbakki ibnu Serigne mohtala mbakki momit Cheikh Sidil mohtar mbakki dadi di lettre ngir joxat ko ci ndigal muy dundal li nga xamni modi bis bobé nga xamni bisub tarikh le bisub tarikh bis fess del ak solo bis fess del ak njàng dund ak njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tisbari jewal je Cheikh Mouhamadoul muntakha mbakki xalifa général des Mourides daal di yeesalaat li nga xam ne moo di ndigal loolee ñu jox sëriñ Abdul Muhayminu Mbacke ibnu sëriñ Moxtala Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides daal di yeesalaat ndigal loole ngir li nga xam ne moo di màggalu jeewal gi ngir daal di koy dundal at mu jot ni ñu ko defee daaw ñu ngi dëkkmal kon màggal gi sëriñ Abdul Muhayminu Mbacke di si woo mboolem jullit yëpp bàyyiwul kenn mboolem taalibi sëriñ Touba yëpp bàyyiwul kenn mbooleem kilifa yi réew mi yëpp bàyyiwul kenn di bis boo xam ne ñu ngi koy fàttali mboolem kuréelu jéewal yi yëpp kuréelu jéewal yi nga xam ne bis bi seen yitte la mbooleem kuréel yi nekk ci réewum Sénégal ci mbooleem région yi rawatina bi région bu Louga ak li ko wër yëpp bis baa ngi noonu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atum 2024 samedi 18 mai 2024 ci Touba Jéewal gi nga xamante ni bii moom sëriñ bi sëriñ Abdul Muhayminu Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadoul Moutala Mbàkke dana fay def ay jéego yu am solo ba dëkk ba tàmmi lay ràññeeku bu baax a baax ci wàllum yoon yoo xam ne def na fay rang-rang ba dëkk ba jàppandi ci wàllum dem waaye tamit ci wàllum ndox ak forage bi ñu fa samp ci wàllum courant bi nga xam ne dugg na ci dëkk bi li nga xamante ni bii moo di wàllum daara ju ñuy jàngee ba ci kër goo xamante ne bii kër dalukaay la di kër sëriñ Touba am yéen yit dëkk bi daal di war a gën a ubbeeku ci wàllum tali yoo xamante ni bii mu ngi ci am yéene ngir mu yegg ci dëkk bi yu mag yoo xamante ni bii sëriñ Abdul Muhayminu Mbàkke def na ko fii ci Touba Jéewal bi nga xam ne bisub taarix la ñu ngi ciy woo mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo di kilifa yi réew mi ci wàllum gouvernement bi waaye kilifa yi diine yi Sénégal gi yëpp samedi 18 mai 2024 foofe sa Jéewal tisbaari Jéewal ak a jara fàttali hayu safar lañu waa fa loo ka nabti loola jàpp ni Seex Bamba ne moom caranga